fii ak état mu ngi jubal sénégalais yi mën nañoo wéy di ànd ak moom bu fekkente ne dafa noppee jubal nag sénégalais yu baree bari ñoom it dañuy jàpp ne seen fulla moom mooy keneen nañ dem xool feneen fu ñu làqatu bu dee mbirum Pape Alé Niang ñu baree bari jamono bii ñu toll nii am na benn problème boo xam ne ñu ngi koy souligner te problème boobu du benn problème bu dul keneen ki nga xam ne moom moo di Sidaty Thioune gannaaw bi mu amee problème fi nga xam ne moom moo di euh, RFM ki nga xam ne moom moo di pop Alé Niang daal koy recruter fi nga xam ne moom moo di RTS est-ce que loolee nag dina ko def ndaxte tamit bu ñu fàtte ne dañoo nekk ci état bu nga xam ne wala boog jamono bu nga xam ne ñu baree bari dañ laa siñ fang ndaxte bu ñu gisee nomination yi ñu ne ah ñi kat liñ diggoon Sénégalais yi defuñu ko parce que dañoo waxoon nekkat dañuy def appel à la candidature ñu baree bari ñu recruter ci ay places jël leen dañoo bokk ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo doon jàppale kii di Bassirou Diomaye Faye te loolee jàpp nañ ne ci li valable ci la bokk kon nag lan moo waral jamono bii ñu toll nii coow lu bari li nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy def Pape Alé Niang mi ngi ci palaasam mi ngi liggéey gaa am na ay situation yoo xam ne yu critique la woon nekkoon na si génn na si jamono bii ñu toll nii Dakar Matin bàyyi na ko nee na defatu fa li nga xam ne moom moo di ay chronique wala bokk gérétu ko normal ndaxte am na yeneen nomination yoo xam ne moom moo gën a pire que loolu kon nag jamono bii ñu toll nii liñ gën a soxla moom mooy président Bassirou Diomaye Faye taxawal ñu ci réew mi moo xam ay avancement la lépp lu dellu ci suñu wàllu liggéey parce que tamit jeunes yi ñu ngi dee ci loo xam ne lu kenn xamul la ñi jëloon mbëkk mi di dem ñu si baree bari jamono bi commencé di reprendre te loolee lépp lenn rek moom moo ko mën a dindi moo ñu fexe ba suuxat fii ci biir réew mi di Sénégal loo xam ne dina tax ndaw ñëpp daal di toog président Ousmane Sonko mi ngi ko doon wax premier ministre lu dellu ci wàllu mbay mi te mbay moomee ñu jàpp que ne kat liy suqali réew mi ci la bokk. est-ce que nag dinañ def ay jéego maanaam pour ñu développer ci li nga xam moom moo di wàllu mbay mi mbënn mi ku wax lii wax la ca des moom it nekk loo xam ne chaque année moom mooy nekk point bi nga xam ne moom moo gën a màgg fii ci biir réew mi gis nañ ki nga xam ne moom mooy Pa Assane wala bokk mën nañ ko tuddee ki nga xam mooy Baye Assane Mesere def si jàngat yu yaa pavage yi nga xam ne dañuy faral di ko gis ñu koy def ci mbedd yi nga xam ne ndox mi bu dikkee du am fu mu te kenn du ko utal ay rigole yoo xam ne ci la ndox bi di jaar pour mën a dem loolee bokk ci situation yi nga xam ne bu réew mi amee ay jafe-jafe ci wàllu inondation ci la bokk